Toujours dans votre scandale du jour de ce vendredi 17 novembre 2023 sur VIP People TV la chaîne des grands événements s'informer juste après Si vous voulez vous dama bëgg vidéo, ñu seetaan beneen vidéo bi nga qui est kii mi ngi bokkoon ci membre Yana Mar. déglu leen bu baax baax lu mu wax di dellu si man un gendarme dogaale na ma ci temps yële ci euh, weeru koor gi. ci croisement effectivement dama donner une troisième position après ma duggaat gendarme du motariste bi dogaale ma hmm. bi ma dogaalee du matin se di ma taxawloo ci digg tali bi ma ko du ma taxaw ci digg tali bi muy insister ma ko du ma taxaw ci digg tali bi j'ai pris le temps de bien garer ma il est venu ne ça sa permis de conduire maintenant ne ko lu xew hmm. mu ne de conduire ma ko mais lu mu ne ma non jox ma sa permis de conduire d'abord ñu soog a waxtaan ci lan nga def ban infraction nga def ma ne ko d'accord ma jox ko sama permis de conduire xam nga lan la gendarme bi def fes dam sàcc suma permis de conduire c'est un motariste il a volé mon permis de conduire ma seet ko ci brigade de gendarme Sénégal yëpp ñu ne gisuñu ko kon ce gendarme il l'a volé parce que bu ko déposé woon dinaa ko gis pour la attestation dégguloo maa ngi ci suma oto maa ngi ci suma oto mu ngi ci motoom mu arrêté ma ma taxaw ma abal jox permis j'ai insisté mu ne jox ma permis bon avec tout le respect ak tenue beeg je suis ma jox ko permis bi mu cinquième sàcc permis ba nii li tax ma parce que xaw ma lan la ci jublu ak luñ ci hmm. ils ont volé mon permis de conduire dama dem def euh, certificat de perte amaat beneen permis de conduire

ak euh, euh, kii la la la Samba Thiam. kon ñoo déggandoo kii nga xamante ni mi ngi bokkoon ci mouvement Y'en a ay weer yi si ginnaaw ñu jàppoon ko ci wàllu njuuj njaaj trafic de visa ak kii nga xamante ni mooy Thierno Diallo ginnaaw bu muy encaissé ay xaalis bëgg a dóor ay visa ñu jàpp ko tëj ko muy bëgg dee di créer ay feebar ñu ñaanal ko ba ñu def ko liberté provisoire waxuma nag moom moo wax benn jour benn motariste daf ko arrêté ci yoon bi déglu leen bu baax fekk mi ngi génn troisième position mu dem bay génn mu delluwaat. am intention def infraction rek infraction la intention parce que tey am intention rey nit loolu rek menace la am intention yéene bañ ne ko ba yàlla suñu borom sooy jàpp sax dangay naan fas naa yéene jàpp sooy julli da ngay naan fas naa yéene jàpp maanaam am nga yéene sooy woor da ngay naan fas naa yéene jaamu suñu borom ginnaaw bi man fase tàmbali weeru koor gi kon am nga yéene génn en troisième position muy infraction yow mi woote nouveau type de sénégalais yow woote yaanamaar yow mi woote civisme yow mi woote citoyen daanu nga yow sax xelu la may ba nga xalaat ni que yow muy gendarme ñak gi gendarme ba ngay 3e position 3e position bi ngay génn non dajek benen ñëw subitement mënoon a créé ba xamante ne ay bakkan yu bari dañ fa yoro yow ya njëkk wax infraction bi nga def gendarme bi dabla ak motaram mun la da ngay taxaw nga ne ko duma taxaw ci diggu tali bi yow ba nga njëkkee infraction manam maanaam 3e position looy bañee taxaw ci diggu tali bi def nga infraction ba paré jox ma sa mu jël sa permis ba pare dem nga ne dafa sàcc sa permis gendarme bi lu muy doyee sa permis daf koy jaay daf koy lekk nit da ngay am ay kàddu yu rafet bàyyi leen di nax nit ñi di nax askan bi yéen ci seen bopp yéen a jubut yow balaa ngay xam ne gendarme bi yow yaa njëkk a def infraction yow yaa woote nouveau type de sénégalais yaa naa maar nañu changé li fi nekk changé système bi indi état de droit yow jàpp nañ la si njuuj njaaj trafic visa yow nga ñëwaat di doublé di génn trois troisième position yow kan nga war a waxal ñu lay déglu. Sénégal, c'est cette jeunesse-là qui vous inspire à faire la violence. Vous, la jeunesse sénégalaise, est-ce que nous avez un plateau qui est un intérêt personnel des Ces gens-là ne sont pas des patriotes. Qui dit que les fait que dans nouveau type de Sénégalais par ngay une troisième position Nous la le nouveau type de Sénégalais par may def le trafic de visa manam lo ce escroquerie faux et usage de faux Vous xamante ni yoon daf ko condamné ñi ñoo wacc est-ce que war nga déglu ci ñii est-ce que benn mbindeef boo xamante ne yaa ngi dox am xel war nga déglu genre ñii moom moo wax ay propos dugal boppam ba pare bëgg a accuser kii di gendarme bi gendarme bi ci loi war na jël sa permis war na la attester su la attester notifier la li tax mu jël sa permis pour ëllëgee ci biir fooy jëli jee sa permis xëy na nag da nga def acte réewande muy motariste mu war a jëm fenn peut-être mais gendarme bi sàcc na sama permis je crois que loolu war nga rus taxaw di ko wax

di wax ñi leen di dégg di créer ay mouvement dem ci ay ONG ñi leen jox xaalis dem leen ñaq ji dem leen liggéey dem leen génnee album dem leen defi concert dem leen réveiller nit ñi dem leen wax ci dëkk bi moo gën ngeen dàqatu ci ginnaaw politiciens yi plateau bu dul jeex démb maa ngi gis ñu dajal len ci benn site jël El malik Ndiaye teg ko jël ay pro Ousmane Sonko tek ko ngeen foog ni ko lolu moy journalisme lolu moy équilibre information mais ñi ko doon seetaan sax dañu amone gàcce ngir benn décision bu ñu jëm justice war ko jël demal France amul jugement ba ñuy def veille bi nga gis ay homme politique wala ay leader wala ay chroniqueur wala ay activiste taxaw di wax ci juge bi wax nu procès bi war a c'est honteux pour un Sénégal pour des gens qui réclament un état de droit vous n'êtes pas justifiable pour que vous justifiez votre cause dafa doy waar parfois dama leen di seetaan di leen déglu mais damay am gàcc ci yéen peut-être ñenn ñi leen di déglu amaana xamuñu luy àdduna génnuñu fii la ñem ñun dañoo génn def le tour du monde def le tour de l'Afrique xam luy àdduna xam nu muy doxee xam luy roi xam luy démocratie xam luy liberté d'expression yéen a ngi nii de ngeen Togo dem Togo di fa jaay seen yëfu reewande bii Macky Sall intervenir pour ñu libérer leen mais sinon ci kaso bi lañ leen doon lu ngeen fa yóbboon Y en kon Sénégal amul démocratie et pourtant lu leen neex ngeen di wax fi Togo ngeen jéggi waxuma leen fenn Afrique fi ngeen dem dem Togo di fa jaay affaire Y en activisme dañ leen japp ni rëpp ci aéroport bi nar leen yóbbu ci kaso bi président Macky Sall moo def intervention ak suñu corps diplomatique pour que ñu mën leen libérer xana da ngeen fàttee lolu fi lañu fekk.